mu mel ni sunu mbind bi weesu dikkoon nañu ci ak faramfànce bu ama am solo maanaam benn tëralin classification boo xam ni boroom téere bi jazahullahu xayran daal dina koy tënkee li nga xam ni moom mooy xaaju nit ñi ci koor gisoon nañ ne lu bari ay njëriñ la lu bari ay njàngale la ndax ki nga xam nii am na ci ràññee ak maîtrise xam ko bu baax dana mën a xam moom bu koor dikkee fan lay bokk ndax day bokk ci ñuy woor wala déet ndax lu bëree bari ci laaju koor yi day wëndeelu ci tomb boobu ndax man man na maa woor wala war na maa woor wala déet mu mel nii xaaj yooyu nekkoon na fukki xaaj ñu ne woon daañu ci ñëw benn par benn ngir indi ci ay faram-fàcce bu ko defee yooyee xaaj ba ca jiitu moom mooy al muslim al alqaadir almuqiim alsaalim min almawaani maanaam jullit bi nga xamante ni nii majeur na suñ nee majeur na wala bokk suñ nee jullit am na ku génn hmm? magoog suñ nee jullit rek am na ku ci bokkul kan moo ci bokkul yéefar bi yéefar bi génn na albaalig ki majeur ki majeur suñ ne majeur am na ku génn kan moo génn gone xale ki nga xam ni àggagul ci tolluwaayu majeur kooku génn na bokkatul suñ ne al aqil mooy ki ànd ak sagoom kon am nañu génn ñi am jafe-jafe xel moo xam ngir feebar bu leen gaar muy feebaru xel walla boog magal gis nga walla boog magal ba wax dëgg àgg nañ ci naax xel may daw ñooñu tamit génn nañu alqaadir <clears throat> ki mën buñ ko waxee tamit ki mënul ma ngoog génn na ki mënul génn na almuqiim mooy ki nga xamante ni nii mi ngi toog tukkiwut nekkut ci tukki kon ki tukki génn na ba ca mujj mooy assaalim min al mawaani mu nekk ku mucc ayib ci mbir yi nga xam ni ay mawaani la day tere nit woor maanaam ay situation la wala ay mbir yoo xam ne bu gaaree nit ki islaam danaan ko doo woor masalan deretu ngànt deretu wasin gis nga islaam danaan la doo woor gis nga ma ngoog kon tomb bu jëkk bi mooy jullit bi majeur déglul bu baax jullit bi nga xam ni dafa majeur ànd ak sagoom ànd ak xelam am kàttani woor te nekkut ci tukki te nekkut di àndak wala di làmboo mbir yi nga xam ni daf lay teree woor kooku mooy ki njëkk ki bu boobaa nag kooku lan mooy situation par rapport ak koor góor gi mu ne assawmu waajib aleyhi mu ne kooku moom koor dafa war ci moom maanaam wooru ramadan weeru koor lu war la ci moom c'est une obligation waajib la ma ngoog waajib la waajib mooy ma amara bihi alshari ala wajhi ilzam li nga xam ni sharia daf koo digle digleeg forcé li nga xam ni sharia daf koo digle digleek forcé loolu mooy waajib mango atteem nag mooy yu alayhi faailuhu wa yasta wa yastaxiqu taarikuhu li ka def waajib ba aa des na ca am yool yu alayhi mango waaye ka ko deful nag moom aa kooku mi ngi ci suufu tëkkuk mbugal tëkkuki duma ma ngoog ndax lan ndax bàyyi na waajib bàyyi obligation kon kor, kan mooy ki nga xam ni moom la war ñu ne mi ngi war jullit bi nga dafa majeur andak sagom sagoom xelam mën woor am woor nekkut di tukki te nekkut di làmboo yenn mbir yi nga xam ni day tere nit woor kii fu ramadaan dugg see rek daa war a woor kon boobu mooy bu jëkk bi xaaj bu jëkk bi ñaareelu xaaj bi mu ne alkaafir ñaareelu xaaj bi ci nit ñi par rapport ak koor mu ne mooy alkaafir laa yasuum wala yajibu alayhi qadaau sawmi ida aslama yéefar bi maanaam ki nekkul jullit ki nekkul jullit mi ngi ci diggante situation wu mu dee ci kéeféeram wala boog bés jot mu tuub dugg ci lislaam moo tax góor gi <laughs> da ko waabale جزاه الله خيرا غورغي دافو من جانغالي داكو وابالي خم نين وابالي داكو وابالي دافكو جي دوغالالي سي واخجي من الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم اذا اسلم كون غيسنغا كافر بي ميغي سي ديغنتلو ديس سي كافرام موي كفرام ولا بو مو دوغ دوغ سي الاسلام يالا نيالا ماي فيك تي ديني تي دينا mu ne kon yéefar boobee moom du woor ban koor la dul woor du woor wooru ramadan maanaam kooru jaamu maanaam woor bi nga xam ni mooy attaabud lillahi bi tarki l mufattirat min tuluci l fajri ila gurubi shams koor googu du ko woor waaw balaa nga ne naam ne fa balaa mu mën kaa woor day nekk jullit ba pare ndax koor mooy ñeenteelu ponk bi ci lislaam te moom jaaragul ci ponk bi jëkk muy shahaadatu an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah jaaragul foofu ndéem jaaragu fa nag kooku woor warul ci moom mangoog ci ñàkk xam diina day sànd nga gis ñeen ñu bari ñu naan diw diw du julli de waaye sa koor day woor loolu ñàkk xam diina la islam dafa am ñu mu sant ne leen def leen n'est-ce pas du yéen a ngi dégg laa ikraha fi diin ma ngo donc islam dafa am ñu mu sant ñi mu sant mooy ñi nangu condition un deux trois dañ egsee ci quatre mu ne leen def leen quatre mais yow nangoo condition un شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يوم أن محمد صلى الله عليه وسلم sallam du yonant gëmoo ne des fois nga dégg ñenn ñi di ci def politique naan waaw gëm nañ ne sax moom existé woon na seen nas ndaw mos na maa wax loolu waaye nanguwul àgg ci ne gëm na ne yonant la bu yàlla yónni comme Isa ni nekkee yonant comme Moussa ni mu nekkee yonant kooku egseegul balaa nga ne naam ne fa kon yooyu ay njumte la bu tegu ci ñàkk a xam rek vision ak croyance populaire la kon. yéefar bi mën naa woor nag yeneen façon woor yi maanaam ay jeûne thérapeutique yooyu noonu kooru fajo bu ko neexee woor parce que loolu ay aada la du ay ibaadaat gis nga ko du ay ibaadaat ay aadaat la aadaat yi moom dangay def rek gis nga ba lislaam ne la taxawal waaye ibaadaat yi moom da ngay taxaw ba lislaam ne la defal al aslu fil ibadat al cosaan ci jaamu yàlla mooy at tawaquf mooy akuk taxaw terew ba lislaam ne la defal nga doog a def bu la lislaam ne defal nga def ma kon koor gi nga xam ni mooy kooru ramadan di koor sharaan kooku warut ki nga xam ni yéefar la loolu benn la comme niñ ko junjee woon waxoon nañ ni góor gi dafa waabale maanaam dafa dugalaale beneen aspect mooy yéefar boobu bu deewee ci kéefaram jeex na maanaam woor waru ko laa yajibu alayhi sawm gis nga afwan laa yasuumu kooku du woor ak bàll bàll ma ci taabir bi du woor ma ngoog <coughs> kooku du woor ndax lan ndax duggagul ci li nga xamante ni nii moom mooy lislaam mu ne waaye walla yajibu alayhi qadaau sawmi isa aslama bu demoon ba tuub tey dugg ci lislaam fukki at yi nga xam ni moom la defoon ci kéeféer ñaar fukki at ya yooyee koor yooyu du ko fayaat day dugg ci lislaam rek daal di continuer koor ga ko fa fekk mu dal di woor ànd ak moom wéy di dem waaye koor ya weesu du ko fayaat fii góor gi dafa indi beneen forme de classification maanaam boo xoolee tomb bu njëkk bi ak ñaareelu tomb bi danga ciy gis ñi nga xamante ni nii koor dalee na war mooy tomb bu njëkk bi mais deuxième tomb bi danga ciy gis ñi nga xam ni duñu woor te it te situation mën na dem ba ñoom maanaam ki nga xam ne mooy kaafir bi bu duggee ci lislaam xam nga nekk na jullit yaromboon ci ay koor du ko fay maanaam foofu dafa indi beneen xaaj mooy ñi nga xam ni bori ya dañ koy fay ak ñi nga xam ni bori ya duñ ko fay loolu bàyyi leen ko xel bu baax ci biir xaaj waaw ñi koor war ma ñi nga xam ne duñu ñu woor ak ñi nga xamante ni nii bu ñu woorul dañuy fay ak ñi nga xamante nii du ñu fay gis nga ak ñi nga xam ne leneen moo cay gàllu wala leneen moo cay taxaw ak yu demee noonee loolu dana gën a leer ca kanam bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tey seet defal leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu